ngeen jot suñu vidéo nag a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal a xam lu rëy na xew na ndar. awine boobu ñuy jullee. feedar ba nekkoon fa ndar. ak ñoom gouverneur Mouté. général palaat ñoom ñëpp di xeex mm-hmm. boo boo diggee xeexu Paate Badiane. Mm-hmm. borom dara tax. kon tey bu ñu demee ba Serigne Touba liggéey fu julli fa ñaari rakka ñu samp fa feedar ba tuddee ko ko ku ne di ko romb di ko wër manoon naa daanu ci ngelaw lu jëkk la waaye nag bañ ni tey la le 5 septembre Serigne Touba julli feedar ba fàq daanu ci suuf maa ngi nuyu Mansour Faye sama xarit di ko ndokkeel dégg naa mu wax mhm. ni daañu delloo feedar ba ku ko delloo mu daanu peexe ko wax <laughs> nañu rafetal Serigne Touba ni ko yàlla def nañ ko di def ku ko di def doo dem la daaneel feedar ba buddi ko mm. ba ràbb ya mu am ya mu buutoon ànd ak buut ya daanu loolu baatin la baatin ak bëti neen bokkul nañ ko fa delloo bu ñu ko fa delloo Serigne Touba di kat ñaata taw fi jaar ñaata ngelaw fi jaar Ablaye waaw dafa am loo xam lii nag mm-hmm. man duma ko rël duma ko wëral mooy meeru Ndar jàmbaar la lool ci jullikaay ba mm-hmm. tant ba ñuy tant ak lépp moo koy def la war ca ñaari rakkaaye lépp it ma dikkee ko def ak mu jot mu ngi noonu papa mm. kon nag danoo bëgg ñu xam ni feebar bii Sëriñ Tuubaa ko daaneel mm-hmm. ku ko yëkkati daanu ànd ak moom te sama xa sama xa man sama xarit bëgguma mu daanu ku ko yëkkati daanu feexe ko wax maa ko wax ñu ngi maa ngi nañ ko yëkkati ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew